père Buura ngi waa père foo jógee nii. aéroport. loo jëli Boy Niang. ana Boy Niang. Boy Niang egseegul. Malaw sa yére baax na. waaw kii wisi la moom laa jël jee woon champion bi. fo ngeen jógee nii kon. aéroport yes. waaw. ana champion bi. mu ngi ñëw. mu def giri comme nii. maa nga jàmm. sant yàlla bu baax. père daa mel da nga xaar de. Ah. ñu ñun ñëpp moom la ñu xaar. mooy kan. kay Capa Thioli. Capa Thioli. Thioli dem na. waaw ko def loo ak yonent bi na Sassane ak Cheikh Moutou Fall. Talla Ndiaye ma lii. daa war a tàkk. daa war a tàkk ñoo ngi Pikine. Babacar lu Alaaji bàcc. bàcc la nga moto rajax rajax Lamine yaa tay eh ab tubaab waa kii kan la kii kan la taala kii mooy kan laa ilaha illallah booy ñaa ku mu àndal man de ki mu àndal man de ki mu àndal la ma yéem man Lamine ki mu àndal daal la jaaxal kii day dëkkut ci réew mi kii ndax ci réew mi la dëkk kii kay boxeur la kii de bu la dóoree nga ñàkki bëñ maa la ko wax ngay làkkante da xanaa ay tubaab la ko war a làkk dégol siñor lay waxal noonu toppal leen ma loolu yee wàcc na Lamine forme bu wóor forme ba daa wóor bolokaas lañu laaj gaa yaa ngay régler circulation ba taxaw taala nga jóge Paris lébu di la teeru nii taala nga jege Europe sa soxna di la xaar nii ak sa maire baa ngoogu taxaw ndeysaan xanaa ñi ci des ay bàjjanam lañu Siri booy ña nga ngoogu taxaw muuru cey Lamine nga jóge nga jóge nga jóge voyage madame Seck di la xaar. loolu de dara dàq ko. <laughs> Lamine yor say valise. kii nag est-ce que booy ñaanum maa ngi leen di nuyu may nuyu sama nijaay yi sant ngom nekk dëkk ba ginnaaw raaya ngi nii xool ko mu ngay nëbbutu waaye taala am na la yàgg na. waaw ñibbisi na. yow yaa Boy Niang lu ngeen bokk. waaw Boy Niang sama mag la yaa mag sama yaay ñu bokk ndey ak baay kii mooy sama yaay. waaw mère bi moog sama yaay ñu bokk ndey ak baay. sama mag la quoi waaw. waaw sama mag la combat bi mu jëm ndax mën naa yomb. dégguma question bi. combat bi ndax mën naa yomb. waaw combat bi du yomb la dëgër champion la. mais tamit ñu ngi ñaan ci ñu ngi ñaan ci barke Seex na Seex bi yal nañu yàlla defal ndam lu rëy. yal na yàlla nangu ziar. ah man daa doon sa doom. gis nga koo gis daa mel ni. naa ko moom. mën naa ko lool. yaay juy teeru doomam koñ bi génn nii ci yaay ak doom lu yaay di yëg. dafa sedd guy rek dafa sedd guy ci moom xam nga doom moom bu la yëgee am fu mu la teg ah sa xol toujours day sedd ci moom sama xol dafa sedd ci moom. sa xol daa sedd ci guy ndax yërëm gim nga yërëm bëgg gim ma bëgg. doom ju mel ni doom ju mel ni doom maanaam doom lu koy may li ci yaayam. am yar am teggin fonk say waajur. fonk ma fonk baayam fonk ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam fonk ñëpp kenn ku ne rek jox na la cëram kenn ku ne bëgg na la jàpp na la. mu jëm mu jëm ci bés digganteem ak Lac de Guiers 2 yow sénégalais nga ci réew mi nga dëpp xam xam nga lan mooy làmb boo xoolee sa doom xool Lac de Guiers ñuy ñaari mbër looy yëg ci wàllum làmb. di ñoom ñëpp ñu gudd fan weer fekkee lépp rek bay nu yegg ci ak jàmm maa ngi ñaanal nag sama doom yàlla may ko nam am na ko yàlla may ndam. am loolu mën naa yomb. ah rek ci loxo yàlla lañ ko teg yàlla yor lépp man mi di ay ndeyam jur ko baayam ne ni gërëm ko ma gërëm ko maa ngi koy ñaanal ndam ci kàttanu yàlla ak mbaax waxoon naa leen ko de booy ñanga ngongu yegg si na pikin de laa ilaha illallah taala njaay ndox ma ngi yaayam a ngi sotti ndox mi jëlal waa jox na ko ndox mu na xanaa lii dawatina yar bena wër ndeysaan ta mook doomu ndeyam Modou Lo ngongu ki est-ce na rek ki qualifié la Coly Faye numéro 2 bu Thiaroye kii rakkam la ñoo bokk ndey ak baay ma wax la ko taala Ndiaye maa la wa ngi noonu fecc katam ak yaayam mère Anna Coly lii de xar bu ndaw la Talla Ndiaye moom da ci fii li lay lekk yéeme de mu ngi noonu la ngeen koy gis mbote Talla lii mbote mbote bu ndaw a ngi <laughs> doy na waar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV Lutte TV ak BP Acti ak nan Sport Vision ah wala Sport Inter ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Lamine la ak Babacar ñaari doomi pend naari comme di ngeen ko xame seq koog càppaacole bi Lamine nuyu naa la fay naa la Babacar di nuyu càppaacoli ji comme ni nga ko waxee woon borom bu jeexee jeex na léegi nag nee na curuxu curuxu la andi moom la jëlee France moom la daajil Lac de Guiers numéro 2 daajil beneen paquet odu daam seen ba nga daajeen jeexal bi yoon curuxu curuxu mbër ñu ngi lay waaw maa lay nuy bu baax Lamine Babacar di nuyu journaliste yi fi ne di nuyu Sénégal moom nu entier di nuyu waa kër Cheikhna Cheikh bu baax waa kër Cheikhna Wuld Maamin yëpp nuyu kilifa diine yi ak kilifa yi di nuyu waa kër sëñ moom sëñ Fall di nuyu waa kër sëñ Abdou Karim bu baax a baax di nuyu Sénégal képp kuy bëggee Boy Niang di wax ne tey kontaan naa bu baax la fait que ma ñëw ma génnoon ñëw gis samay nit samay am di jàmm samay xarit ñoo xam ne fu booña Niang dee ñu dee fa ma gis leen léegi kontaan na sant su bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Leewtoo TV Lutte TV nan Sport ah, wala Sport Inter. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Lamine la ak Babacar ñaari doomi pend naari comme di ngeen ko xamee seq koog càppaacole bi Lamine nuyu naa la. fay naa la Babacar di nuyu càppaacole ji comme ni nga ko waxee woon borom bu jeexee jeex na léegi nag nee na curuxu curuxu la andi moom la jëlee France la daa jël Lac de Guiers numéro 2. daa jël beneen paquet oru daam seen ba nga daa jeexal bi yoon curuxu curuxu mbër ñu ngi lay ziar. waaw maa lay nuyu bu baax Lamine Babacar di nuyu journaliste yi fi ne di nuyu Sénégal monde entier yëpp di nuyu waa kër Cheikhna Cheikh Saad bu baax waa kër Cheikhna Wuldu Maamin yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu waa kër sëñ Afia Mbacke moom nuyu waa kër sëñ Abdou Karim bu baax a baax di nuyu Sénégal képp kuy bëggee Boy Niang di wax ne tey kontaan naa bu baax le fait que ma ñëw ma génnoon ñëw gis samay nit samay am di jàmm samay xarit ñoo xam ne fu Boy Niang dee ma gis leen léegi kontaan na bu baax a baax. liggéey bi. yeggalee ko France ñibbisi Sénégal. lu Japon ni damay dem Japon. waaw Japon dafa am loo xamante ni moom lañ fa commencé woon après ñu jeexalee ko France. Ah, waa ci loolu ñu ngi nuyu dama fa am koo xamante ni sama xarit la muy ambassadeur Japon bi maa ngi koy nuyu de passage di nuyu sénégalais yi ma fekk foofu yëpp ak doomu Pikine yi ma fekk yëpp ci taxawaay bi ci jàppale bu baax ma dem fa commencé liggéey bi. parce que instant yi amoon benn temps pour dem fenn pour seeti dëkk wala yooyu dañoo demoon pour jo liggéey commencé foofu dem jeexale ko France incha allah ñëw ñibbi Sénégal ci jàmm sant yàlla. léegi euh, li ma koy laaj mooy moom dafa demoon France Japon di mooy jóge fa dem France lu waral jàllantu bi noonu jóge France bi dem jóge Japon dem France. waaw dafa am ñoo xaman France daa doon liggéeyee sa combat France daa liggéey liggéeyee sa combat di nuyu ñu ma fa nekkoon di liggéey comme suma xarit bi ñu koy wax euh, Waly. waali moom incha allah moom signature bi moo ko indi loolu moo tax mu ma day ànd ak man ñëw ànd ak frère maa ngi koy nuyu bu baax di ziar ñëpp waaw loolu rek dañuy wane considération bi ñu am ci Boy Niang maa ngi koy nuyu baax di leen sant bu baax a baax fa laa liggéey ak ñoom commando samay grand ñoom Eric laa doon liggéey sa combat mais Japon dafa am loo xam ne dañu fa proposé muy liggéey bu bees boo xam ne dañ ko fa la liggéey ak sumo yeeg yëpp ñu dem découvrir rek ay xale la ñu dem découvrir après bu gisee bu fa jëlee dara boole ko li ñu jëlee franc indi après ñu mottali parce que liggéey bi jeexagul. kon yow la nga a laa commencé ah. dem découvrir xam nga sumo dafa am solo ponkal yooyu di def plus de deux cent et quelques kilos waa nga roofante ñoom am dara après nga dem France xam nga jëli dara ñëwaat fii tamit yeggali noonu la rek. Lamine est-ce que adversaire bi muy bëreel moo waral nga dem Japon dem France dem defi moo jël ay lu deux cent kilos adversaire moo toll noonu xanaa. non boo ñaa lu mu def ci làmb moo toll noonu pas adversaire bi mais Boy Niang taxawaayam ci làmb moo waral mu war a liggéey mais pas la de bi maanaam ma waxoon noonu dëgg la ci man nekku dama ko wax pour dara yàlla xam na ni sama xel ak sama xol sama vision romb na ko loolu dëgg la ci man de billaahi nekkul moom champion la xam nga la de guerre daan Yékini nii nii rek Eumeu Sène nii rek Modou Lô yaa ngi dégg daan Tapha Tine daan Papa kooku champion la champion la nangul nañ ko bu baax waaw dañuy wax li nga xam ne moo ne si ñun suñu xel ak suñu xol romb na loolu bilaay walaay. am na lu ma seetlu ci moom parce que man dama koy wax la mi nee naa ko Lac de Guiers produit local lay consommer parce que damay faral di gis du génn Sénégal te mbër dana génn ñëw te du la maanaam doo ko ndil jafe-jafe mu mel ni ki tamit ak lu ñu la waaye mën a wax it est-ce que moom nekkul sportif bu sérieux ci maanaam ci li muy def. ñun tamit dañoo sérieux ci li def. daa mos a dem taxaw foo xamante ni waru fa gis Boy Niang gis ko fa. non maanaam ci côté maanaam sport bi maanaam. athlète bi quoi la loolu nag mhm. moo liggéey waa incha allah. xam buñ ne sérieux moom mën nañ ne ci yow lañ koy commencé ndax sa carrière yàggul macha allah te tey gis nañ fi nga atteindre ci so fi nga nekk mais moom maanaam adversaire bi tout temps ci la ñu mën a wax mooy li la ëmbal champion la xam nga mhm. la boo dafa def ay preuve am ci làmb yaa ngi champion la ñu nangul ko ko bu baax a baax mais ñun suñu gëm-gëm lu ñuy wax suñu gëm-gëm la ñuy waxee teguñu ko fenn dañ ko teg ci ay xale lañu ñu ngi ci yoon bi gëm nañ mbir bi am na ñoo xamante ni bëgg nañu duñu jàppale nekk suñu ginnaaw ñu tegu ci yoon bi liggéey la ñu sant ñu ngi ci duñ ci dem ba dee nit ñi bu ñu mënee génne seen xaalis di ko def ci Boy Niang Boy Niang dafay mën nekk ci suuf si nekk ci gandos gi yéeg ci avion yi dem liggéey rek bi nga ñaata combat wala Lac 2 mooy sax waa ah, bu fekkee dama boole mbapat yi ak bu bi moom mooy sama neuvième combat Guédiawaye. mbapat yi kan kan nga fa daan mbapat. waaw may xuus si yi damay wax ni man ak Guédiawaye nekkul esprit d'animosité làmb moo ma boole ak ñoom boo ñaa ba mu daanee Sa Thiès làmbaloog bu nekk xam nga ni boo ñaa la déggee la wala bëre. bu fekkoon Lac de Guiers passé la dëkk wala feneen foom laay bëreel mais géejuwaay dëkk làmb moo ñu boole. am na loo xamante ni géejuwaay ak Pikine sorewul bu ko teeree semaine nii rek après bordel lay doon te baaxul ñëpp ñoo bokku ndey bokku baay mais nag Lac de Guiers nag dañuy bëree dañuy xeex dañoo fay dañoo bëree xeex jëflante ci biir géew bi suñ moom defal ñun ndam ñu may ko loxo encouragé ko kon na suñu yoon loolu rek moo ci ne. sama waay bëri naa fa ak ay nit. Mhm. yàlla dogal na du ma ci ne di parce que yàgg naa k wax bëri naa ci bi mooy neuvième combat ak géej ñaan suñu moom dafa ñu ndam mais man ak ñoom yàlla xam na ni ci groupe ñi taxaw nii am na fi ñoo xam ne géej waa leen dëkk ci ñi taxaw nii jër sama aéroport am ñoo xam ne géej waa leen dëkk dafa am waa géej waa def nañ coalition pour arrêté boo ñaa parce que boo ñaa daf leen a dem nañ fi nag ñoom ñëpp kër kër Balla Gaye yu tudd ando ando génn fi booy wala waaw waaw noonu la suñu borom nag mooy loolu lépp ñoom xam nga dafa am loo xam da ci am solo te mu bëgg ko bu baax mooy lu ñu jàppale jàppale ci géew maa la dageen ñoo fay ne waaw loolu dama ko bëgg bu baax a mbër boo koy jàppale bind bindum teen rek ah, suñu père Bourkhane mi lu mu ci jàpp jàpp <laughs> ci bunt bi lay taxaw ne ma mbër lii ak lii mais mën nañ jàppale ba mu am doole nag ah, waaw ñu néew ñu doole ñu ngi sant yàlla ñu ngi suñu ay mbokk ñu ngi ay am di jàmm ñu ngi waa kër Cheikh Nassir Salb ñu ngi waa kër maam Cheikh Rim Doumar Seck ñu ngi wax suñu waa kër sëñ Afia Mbacke ñu ngi suñu waa Pikine boobu doole boobu dara ëpp ko est-ce que seen waa Pikine seen 100 pour cent Pikine ni Guédiawaye di dundee actuellement seen bos a noonu. non 100 pour cent boo ko waxee rek Pikine ngay dundal bi quoi xam nga suuxat jëmbat garab yombul mais dundal koy dundal di ko di ko di ko di ko suuxat xam nga lu tax. Hmm. que ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. maa ngi doon loin di gis lépp mais ñu ñëpp ñoo far gars dañuy wax nii rek mais ñi nga xamante ne ñooy leader yi Pikine mbëri bu ñu daje woon léegi muy Eumeu Sène Ama Boy jet li soq boo yëpp daa champion yi si Ziza champion yi daal ñëpp daal boobu bu bañ a lim rek bu ñu dajewul léegi nga fekk leen ci néeg da nga naan déedéet ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay yéen tey jàmm suñu papa yi ñoo doon ànd loolu yàgg na ama suma frère la ama seen suma grand frère la ñi ci suma ay frère lañ suma ay nit lañu ku ci am combat ma nga gis ma ak nga ñàkk moo gis dama lay yéen a yëpp yéen a jàppale la ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay dafa am ñoo xamante ni nag wax mu defarul rek day yàq nañu wax luy defar ñu ñëpp ñoo bokk day bokk baay Ama li muy jël këram la ko yóbbu papaam sonn na ci làmb Boy Niang papaam sonn na ci làmb Eumeu Sène papaam keneen ak keneen bu papaam sonn na ci làmb moom it sonn na ci làmb loolu ñëpp dañoo a am ñu teral suñu waajur dix ans vingt mu jeex ñu bokk ndey bokk baay. damay ñëw ci côté ci côté combat bi Lamine que am na ñu bëri ñuy seetlu dañ ne yéen ñaar seen combat bu ngeen sàggane ci match ni lay mujj ndax doo dem te moom du dem man ngeen fa ne di leewaatoo ba suba. te yow ne nañ yaay xale. mun nañoo bëre ci une minute laa jeex. foo teg loolu la dëgër mënoo bëre ci quinze ba vingt minutes amateur yëpp kontaan lamb nekkul ne bu yàgg am na ay combat yoo xam ne da ngay mbër yu bëre vingt minutes xeex bëre combat bu metti ku nekk dem àndoon na ci ñu bëre combat bu netti jël la am. combat bi combat bi yàgg na mais amateur yëpp kontaan nañu. làmb làmb booy dem da ngay waajal làmb booy dem da waajal lépp ñun waajal nañu pour bëre combat bi ci une seconde. waaye nañ pour bëre combat ba temps bi jeex mais ñu ngi ñaan suñu moom defal ñu ndam dañ xeex nañ bëre ñu ngi koy liggéey ak suñu staff ndax liggéey man ak moom ñoo war a bëre moom champion la am fu mu bëgg dem man tam na am fu mu bëgg a dem ndax comme li ma doon wax comme li ma doon wax chaque année chaque combat li ma doon wax mooy chaque combat li ma doon wax mooy fi ma jëm sama bakkan laaj teg. léegi mois de juillet mois de juillet dafa am lu leen di xaar waa Pikine yow yaa ngi fi Ama Baldé Tapha Tine li nga wax dina taxaw. boo combat waaw yooyu yëpp incha allah su suba ci saa faat bi ñu yeggale dégg nga yéen sama waa ñeent xam nga waaw après lépp nag. maa ngi leen di remercier yéen journalistes yëpp. parce que ak nu mu mënta demee da ngeen a bàyyi seen temps bàyyi seen jot ñëw. yor seen micro taal seen gasoil ñëw. yaay ngi maa leen di remercier ñu ñëpp ay frère la ni ngeen ngeen mel ak yëpp ñu ñëpp ay frère lañ yaa ngi dégg waaw waaw dégg moom maa leen di remercier Eumeu Sène moom defar ko ndam yaa ngi dégg dafa am loo xam ne nag il faut ma wax ko fii ama waaw yàlla waaw yàlla na mu taxaw ak jàmm suñu boom defar ko ndam suñu frère la du Pikine la bu bu ñu ñëpp dañuy jug yaa ngi dégg daa loo xam ne foo ma leeral ko yàlla dafa dogal ma seetaan face à face Eumeu Sène Modou Lo ma toog di ko seetaan ma am benn message bu am solo boo xamante ni sunu papa sunu lépp mu yuusu Ndour mu lancé ko xam nga mbër yi bu ñu nit sànnee dara ci làmb muy kàddu bu bon ñëpp dañ koy mettilu waaye tamit bu nit sàddee muy kàddu bu rafet ñu ñëpp dañ ko rafet lu mu lancé appel ñaar ba ñett mu njëkk bi mu ne moom pare na pour jàppale làmb ak képp ku nekk ci moom deuxième bi mu ne bëgg na ñi nga xamante ni ñooy ñoo bëgg làmb ñu jàppale pousser PPV bi di jënd code yi di jàppale. yaa ngi trois de bi mu ne mi ngi lancé appel société nationale yi ne ci dëkk bi yëpp ñu ñëw génne seen xaalis seen budget de communication ñu dugal ko ci làmb loolu muy man muy yow muy yow ku ne ci làmb war nga rafetlu message boobu xam ne message bu am solo la. parce que promoteur yi ay bailleur lañ di génne seen xaalis di def ci làmb war nañ leen jàppale xaalis bi ñuy dugal ci yeneen sport yi nañ dugal ci làmb mooy sur national ñu jàppale ñu merci beaucoup